13h télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar ci gën a fës te ñu namm ko jukki dina bokk ci coowal euh, nervi ca diwaan bu Ourossogui mouvement Addu Ourossogui nag jamono yi euh, fas nañu kàllaame fa mbax na doone benn ba itam ñu ci joxoñ baaraamu tuuma euh, ki nga xam ne moom moo di Moussa Bokar Thiam di jiit bu moo moomeel bu diwaan bu Ourossogui ndax itam jàpp nañ ne lu ji njaak moom mooy njaak ndax itam ñooñee nga xam ne yebal nañu leen ñuy rëq askan wi ak ki mbool de jug ci benn yoon benn ay bés bës ginnaaw yi nag ay tout tànk ba ñu labee ca waax yu euh, Malika ak itam mali bu ndaw yi ñu ngay woy di dem ci yooyu géej gis ngeen leen noonu ci mbooloo mu takkoo takku ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo di autorité yi juguñu benn yoon di jël ay dogal mu ñeel wàllu kaaraange jamono itam weneen ab dogal woo xamante ni jël nañ ko bépp euh, géej woo xamante ni amaluñu dogal ngir rek askan waa di fa sangu daañ ko tëj ràpp Covid 19 jàppale ne ni ki démb ci dibeer bi amul benn doomi aadama woo xamante ni daal na ci faatu fanweer ak ñett ci ay cas Euh, positif la ñu am ni ki euh, démb daañu wax ci leneen ba tey mu ñeel wàllu daloo gi nag Sadio maane amal ab hôpital fa nga xam ne euh, fala fekk baax ca diwaan bu Bambali ñooñ nag daal di koy teeru ci am bu mucc ayib loolee nag ngir rek ñu daal di koy amal daal dinay ficci lu ëpp ñetti téeméeri million ci suñu ay koppar ngir rek ñu amal taax googe benn fan mbokki ginnaaw itam ñuy màggal li nga xam ne moom moo di fête de la musique ci àdduna wërngal këpp ñaar ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin at bu yàlla sàkk fi ci réew uh, bu uh, Sénégal mu mel ni des ñu ginnaaw benn yoon ministre de la culture itam uh, daal di rek fexe noo xamante ni ñiy melomaan daañ ci gis seen bopp bu baax a baax fële ca place de la nation itam daañ fa amal ay concert ci région yi nga xam ne itam ñoom ñoo nekk fii ci Ndakaaru ci la jotaay xibaar daañ leen jagleel ay kàddu ko ki nga xam ne moom moo di Ndeye Khoudia jaañ xam ngeen de moom mooy directrice des arts la nga xam ne nag moom la dëxëñ ci kàddu yooyu leen ko digtal ci yële jotaayu xibaar mbokk yi li ni mel buñ ci noppee daañu ci toftal yéen kaay yi xëyee ni ki tey jii léegi léegi ma dikk ñu faram nañ leen ko junjee bi ñu door yi la jotaayu euh, xibaar coowal nervi ca diwaan bu Ourossogui foofee nag euh, mouvement ànd Ourossogui euh, ñoom ñooñu nag ñoom ñoo fas yéene yóbbu mbir ma fa mbaxane doone benn la ñu xam ne itam moom moo di ay loxo yi Moussa Bokar Thiam xam ngeen ne moom moo jiit bu bokk moomeel bu diwaan bu Ourossogui jàpp nañ ne jugg ci ñooñee nga xam ne ñoom ñoo yor ay mbolde di rëq askan waa dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Amadou Dia moom moo yoroon seen kàddu ci micro Ali jël ay ay nervi ñu dugal ko ci dëkk bi képp ku fu bëgg yëngatu ñu rakk sa ndigg loolu nag dafa doy ku xamul suñu cosaan ku xamul fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu jógee wurusoo gi dëkku jàmm la ñun ñëpp xamante nañu te politique waruloon egg niveau bii nii bu xamante ni Moussa Bocar Thiam moo ko moo ko eggal loolu moo tax ma ne ñun dañoo condamné bépp injustice bu ñu def ci xale yi nii te constaté nañu dóor nañu suñuy membre mu ku mel ni Abou Guèye ku mel ni amul Débé amul Débé Conté dóor nañu yeneen membre yeneen mouvement te dañ leen di dóor séquestre leen mooy denc leen jël seen seen seen seen alal mooy seen portable yëpp gars yi dañ ko dañ ko dañ ko rëcc loolu nag dinañ ci porte plante su fekkee développement dóor say say doom diiwaan loolu mooy développement ou bien loolu la ñuy tiitaroo nañu xam ne li ñu yor nii suba keneen moo koy yoraat nañu war nañu xalaat loolu war nañu def loolu ci seen bopp. c'est parce que foowul ak ñun demul ak ñun ci béeli demul ak ñun ci weendu racine demul donc xamul suñu valeur socio-culturelle loolu moo tax muy def lu muy def na xam ne nag tey c'est fini c'est fini on ne va plus accepter ces détails-là dans la commune lépp lu mu lu mu lu mu ko jaral rek di ñun tamit dinañu jaral lu ëpp loolu donc loolu laa foofu laay wootee mbépp doomu Ourossogui nañu ñëw ñu unir unir suñu doole ñu mànkoo ñu ànd ngir ñu mun a génnee Moussa Bokar ci Wourossogui yi parce que xamu fi dëkku fi amu fi ko loo xamante ni lii lu ko takkaloo ci ci ci suñu cosaan ak suñuy suñuy aada langu politique bi ba tey mbokk yi xam ngeen ne euh, Mansour fay moom mooy maire bu euh, Ndar Géej euh, mi ngi doon jënoo ak way taskatu xibaar yi naka noonu itam ay dogal mi ngi woy di ko jël ci ñi xam ne nag ñu ngi loru ci dikkum géej gi ci li nga xam ne moom moo di seen i ay makkaan fu ci mel ni quartier bu Santhiaba foofu itam liggéey baa ngay woy bu baax a baax ginnaaw janoom ak way xibaar yi suñu ay ndaw itam taataan nañ ay kàddoom moom Mansour Faye ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck en doomu suñ mbokk Gendar yi nga xam ni ñoo nekk euh, fële ñoo nekkoon fii ci taatu géej gi te géej gi doon leen sonal aujourd'hui ñu déménager leen defe leen ay logement lu ñuy wax des unités mobiles di leen préparer ay logements yoo xam ni des logements durables ñuy protéger la langue de Barbarie tey ku dem jóge goxu Mbacke ñëw ba sanc ba di nga gis ni maanaam liggéey bu ñu fay liggéey liggéey bu mucc ayib la te liggéey boobule dana protéger définitivement Ndar di rappeler Ndar boo seetloo le premier mur de protection ñu ngi ko def en 1927 les mois 95 ans ou 96 ans pour protéger euh, maanaam la langue de Barbarie ak Ndar même ci avancée géej gi waaye c'est la première fois qu'un président contemporain Macky def une protection boo xam ni pour Ndar Ndar moo su ko mooy munutee géej gi ak des ouvrages moo ñu protéger maanaam euh, taatu géej gi bokk na ci lu leen doon junj mbokk yi benn ay bés ginnaaw itam ay ndaw ba ñu labee ca géej bu mali Malibu ak itam fa nga xam ne moom moo di ca Malika ñoom ñooñu itam ñu ngay wëy di dem ci li nga xam ne nag moom moo di géej gi ci lim bu takku gis ngeen leen noonu ba tax itam yi juguñu benn yoon di jël ay dogal jamono yi bépp géej woo xamante ni tere nañ ko askan wi daañ ko tëj nag daal di koy tere ndaw yooyu ñu daal di fay dem suñu ay ndaw ya nga xam ne ñooñu teewal ca bond yi bu Ndakaaru delluwaat nañu fa ngir def def ab taxaw seetlu Omar Mbaw ak Younous Diatta ci reportage ñu seetaan. ay ndaw ñooy ñëw di sangu ci ab géej bi nga xamante ni dafa daal di agité lool benn ay bés rekk ginnaaw bi nga xamante ne fukki ndaw daal di nañu faatu ci géej gi ci bile zone ci ñooñee nga xamante ni faatu nañ nag kenn ki xaritu xale bi la. man ñoo naa fi léegi léegi mu ñibbi de daam ñu ma àndal rek. bari mag. man man waaw. man CM2. bi paa nag dafa ñëwaat ànd ak groupe am ñoom ñëpp du dugg ci géej gi te ragaluñu. man maa ngi tàng jër man ko ok kañ dem man maa ngi ci parce que ñu fay leb yëpp booy Pikine leen du booy géej waaye booy géej waaye kay miin nañ géej bi xam nañ li ñuy def duñu sax sangu ñoom defuñu mais booy Pikine ni fii la ñuy nekk chaque fois ñëw di sangu du dugg wóoru ko fii da ngay dugg un mètre ngay avancé nekk si kii nii si kaw kii bi suuf si noonu nga yaakaar mu jëkki saay rek diig nga jàll suuf waaw waaw fii moom wóorul moom si lu mu gën a xalaat sama xalaat bu gàtt moom wóoru moom c'est interdit bañ ko sax da ngay bind fii Malibu c'est interdit de bañee ici quoi loolu moom wóoru c'est lu may ñaan moom moom moom bu fi kenn sangoo moom loolu laa gën a wóolu ko ca wet ga ay sapeur pompier yu am ay jumtukaay di saytu. yile lépp yuy woy di am daanaka week-end bu ne métti lool maire commune bu Golf Sud moomee daal dafa mel nii xam na lu koy saafara ngir jëlee fi lab yi. ay at a ngi nii at bu ne ñu posé ko te at bu ne problème yi dellu si euh, barke démb rek gouverneur ñëw na fi ñu ànd ak euh, préfet ak commissaire golf ak euh, colonel bi bu sapper pompier ñu waxtaan xalaat ne nañ fa teg ay nit ñoo xam ne ñuy waxtaan ak xale yi pour ñu bañ a dugg ci géej gi de sorte que démb muy mairie muy sapeur muy police ñëpp fa la ñuy yendu di waxtaan ak xale yi pour ñu bañ a dugg ci ndox bi ñëpp a toog. ci beex mi mais boo wanee ginaar rek ñu dugg ci ndox mi waaye bu doon ci man rek la ab dañuy tëj géej gi wala ñu trouver ay solution moo di ñu def fa loo xam ne bu ñu ñëwee ci la ñuy toog ci la ñuy féexlu du ñu xalaat dem ci géej gi. waaye daal àggaguñ ca ndax te gudd yu ñu toll ñi nga xamante ni dañoo fare ca golfe sud gàddaay maanaam ñi nga xamante ni jege nañu Malibu ñoo ngi woy du fa sangu te bile plage. jërëjëf Omar Mbow cent ak ngërëm ñeena la ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax ci jàngoro jàngoroy euh, mbas mi jekki démb euh, ci dibeer bi jàpp leen amul benn doomi aadama woo xamante nii daal na ñàkk bakkanam ginnaaw bi tam euh, fanweer ak ñett ci ay cas la ñu am ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay test yoo xamante ni def nañu ko jàpp itam fukk ak ñeent ci ay doomi adama mu di ay kaa communautaire fanweer ak juróom-ñeenti aji tawat jamono yi nag daal di ñuy wër waaye jàpp jàppale itam bi mbas mi teroo euh, fi ci réew bu Sénégal ba suñu jon yàllaay tey lu tolloo tollook junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett euh, ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci daal di euh, génn àddina ñu desandi ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne ni ki démb foofe nga xam ne moom moo di ca Bambali euh, doo seen doom joojee nag di Sadio Mané nga xam ne euh, foofee la fekk baax ñu ngi doon danoo ak euh, kër docteur lañ ca fi ci si ay koppar ngir rek taxawal woowu taax ëpp na ñetti téeméeri million ci suñu ay koppar moom Sadio Mané international sénégalais boobee nag di sàkk ku nekk ci doomu aadama yi daal di ci sóob seeni ay yoxo Bakary Konté xaali jàmme ci reportage inauguration bi nag ñu ngi ko doon amal ci diwaanu Bambali population yi nag daal di jóge gox bu nekk fii ci Casamance ñoo fekkee ko autorité administrative itam ak ay sportif jóge gox bu nekk infrastructure bi nag ñu ngi koy xayma si trois cent cinquante millions si suñu xaalis. C'est avec une joie incommensurable que je me trouve parmi vous ce matin.

international sénégalais bilee di Sadio Mané di lii nag dafa ko tabax pour jox ko askan bi yëpp nekk fii ci Bujee ci région bu Sédhiou Sénégal yëpp mu ne nag dina réaliser beneen infrastructure pour développement gox bi. hôpital bilee eh, pour Bujee yëpp la mun naa ne région bu Sédhiou yëpp Sénégal yëpp laa ko xam naa ni autorité yore département ministère de la santé du ñu tardé envoyé fii ay médecins pour nag ñu mën a jël en charge patient yi loolu nag bu amee ñu mun a faju ci nu mu waree ma bëgg nag eh, ne leen ci ay semaine rek dinaa ñëw indi fii beneen infrastructure ndaxte damay de pose première pierre benn station de d'essence loolu nag bu amee mu nekk loo xamante ne day tax ba suñu gox mën a gën a développer. une autre action qui rentre dans le cadre de notre localité. parce que le rêve est permis et il faut rêver xale bambaali bile di Sadio Mané ñu ngi koy woowee ñancoo fii ci diwaan bi moom nag ci teyru buur lañ ko daal di teral fii ci diwaanu bambaali mu nekk loo xamante ne askan bi ñu ngi koy rafetlu bu baax. moom ñancoo ñuy rafet lu baax a baax loolee nga xam ne itam def na ko fa mu fekk baax di ah, bàmbal yi ginnaaw wàllu wér-gu-yaram dañuy àddu ci leneen mu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi mbokki jàppale ne SAES ah, e daal dinay amal ab grève li ko dooree ni tey ji ci altine ji nag mu daal di koy ab ah, ci diiru ñetti fan ñoom ñooñu nag li ñuy ñaalu moom moo di pëccxoo yi nga xam ne ñu ngi koy faral di nemmeeku ci daara yu kawe yi rawatina université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom itam ñuy sàkku rek ñu daal di amal convocation conseil de discipline bi nag ngir rek ñu mën a xam fan la euh, loolee nga xam ne soqeekoo ñu koy faral di gis bu yàggul dara foofee nga xam ne euh, moom moo di euh, ca faculté bu droit ak itam lettre ñooñu Abdoulaye Dieng itam di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di syndicaliste yi ñu daal di wëyal boobulee dogal nga xam ne rek daal di koy jël fii ak autorité bi di addu daal di jëmale ci ñoom ñu wax euh, ci leneen lu ëpp nag euh, ñetti téeméer ak fukk ci ay ndaw yoo xamante ni am nañ seen ay euh, lijaasa ñoom ñooñu nag bootu ci li nga xam ne moom moo di fukk ak juróom-ñeenti collectivité territoriale bu département bu Bignona ca capital bu Foundiougne ñoom ñooñu nag la ñu daal di dalal di leen tàggat mu ñeel wàllu xëyub ndaw ñi ak itam nees mën a def ba daal di jëfandikoo financement yi nga xam ne nag nguur bu Sénégal fas yéene na koo ci li nga xam ne moom moo teewlu ki nga xam ne nag euh, moom mooy responsable bu comité euh, scientifique bi ci micro Bakary Konté wala boog Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. dégg nañu njiitu réew mi muy président de la République annoncé ay montants yu am solo 450 milliards pour 3 ans 150 milliards pour 2021 donc en tant que politique il est de not responsabilité on ndaw yi waxtaan ak ñoom nee leen ah njiitu réew mi lu mu annoncé pour jot ko si yoon bi ngay jaar si yoon bi ngay jaar loolu moo tax si forum bi. ñi commencé si thématique bu am solo mooy offre de formation professionnelle mooy xamal ndaw yi ne financement bala nga jot ko foog nga am formation donc moo tax ñi andi ay kuréel yu yu am solo yu nekk au niveau national ak au de la région pour ñu ñëw waxtaan ak ndaw yi si mbirum formation professionnelle. waxtaan tamit si mbirum création d' entreprise parce que boo buggee dem ut financement foog nga am entreprise individuelle wala nga am société anonyme donc loolu yëpp. andi nañu ay structure yoo xam ne nii dañuy expliquer ndaw yi nu ñuy def pour mun am entreprise yoo xam ne di nga mun dem uti financement lu si gën beneen thème bi mooy ñetteel bi mooy nu ñuy def ba jot si koppar yooyu pour mun a euh, développer ay activité économique ak ay activités génératrice de revenu donc loolu tamit andi nañ ay kuréel yoo xam ne nii dañuy expliquer ndaw yi mécanisme boo xam ne bu ñu fa jaaree xale yi nañ mën a am ay financement yu leen permettre ñu réaliser seen ñu ñu dajale tourné nañ autour de 430 participants leneen itam loo xamante ni euh, nguur bu Sénégal mi ngi ci sëgg bu baax a baax di nees mën a def ba daal di jëfandikoo biotechnologie euh, moderne yi nag lu ni mel di aw ndaje woo xamante ni nag ñu ngi ko doon amal ca diwaan bu euh, Fatick autorité nationale bu biosécurité ANB dañuy teewlu ki nga xam ne nag moom moo di directeur national exécutif de l' autorité nationale de biosécurité di wuyoo ci turu Ousseynou Kassé daal nay àddu ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim régulation bi dafa am mission de contrôle dam am mission de suivi am mission de sensibilisation du public am mission aussi d'éducation pour la participation du public taxawaayu nguur gi mooy fexe ba nit ñi seen xel dal te loolu itam ci la ñu nekk ci la ñuy xëy ci la ñuy gontu loolu nag dafa laaj naam xam-xam xam-xam bi mu ngi fi ay professeurs yi université la ñuy liggéeyal ak ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci mbir mi lu ëpp ñaar fukki at Sénégal am ay doomam yoo xam ne seen xarañte je pense que kenn dootu ko werante si Afrique ak si àdduna bi yëpp daf ci am taxawaay bu am solo leneen li si toppoon mooy day laaj euh, xaalis xaalis boobu nag euh, président Macky Sall def na si taxawaay bu am solo maanaam yokk ko yokk bu am solo boo xam ne dina tax ñu ñu mën a lu ñoŋal liggéey bi du doy mukk mais loolu am na si taxawaay ndax bu njëkk bi ñu doon ñëw di door a yegg ci foofu lu ko jiitu fii projet rek la woon. programme la woon donc nit ñi joxuñu ko woon benn dayo bi waaye fi ñu toll nii si si Afrique soowu jënd sax def nañu loi boo xamante ne li si ëpp ñun ñii dañ si am taxawaay bu am solo pour loolu mun a am. bokk na ci leneen lu mu leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar mbokk ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin xel yépp day dem ci lu ñeel wàllu caada mu di fête de la musique ñu koy màggal ci àdduna wërngal këpp fii ci réew bu Sénégal itam desuñu ginnaaw benn yoon ministre de la culture itam fexe na noo xamante ni nag melomaan yi daañ ci gis seen bopp bu baax a baax ab concert woo xamante ni daañ ko amal ca place de la nation ak itam région yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal fu ci nekk itam daañu def kéem kattan ki xam lu ni mel di directrice euh, Sarr moom itam am yeneen yoo xamante ni euh, daal dina koy euh, dëxëñ ginnaaw itam bi mu doon addu ak suñu ay naataango ñu teelu reportage bu Modou Ndiaye ak Amadou Ba. musiciens yi fas yéene delluwaat ca seen ya gannaaw bi ñu toogee at yi nga xamante ni màggaluñu 21 juin di fête de la musique li ko waraloon di mbas mi di Covid 19. ministère de la culture moom fas yéene teg ay moye yu am solo ci région yeeg Ndakaaru ngir fas yéene màggal bés bu ni Euh, Samba Peuzzi nga Blindé El Hadj Keita ay ñoom euh, si wàllu reggae tam dinañ am ay ay ay ñu mag a mag ñu ñëw ay kabo en tout cas daal dina nekk plateau boo xamante ne plateau bu mag lay doon soo génnee ci plateau boobu tamit ñu ngi am plateau biir Parcelles Assainies biir Guédiawaye biir Pikine HLM ak Hann Bel-Air donc pour rek permettre au niveau de Dakar que ñëpp mën a si fi ñuy nekk profiter si am na structure au ministère de la culture yoo xamante ne tamit dañuy dañ koy màggal tamit maanaam Sorano Euh, maison de la culture ak Blaise Senghor tamit. ci fàttali acteurs culturels yooyu nag ñoom li mbas mii di Covid 19 laaloon na leen bu baax looloo waral ministère de la culture gënal génneewam ab fonds leen ko ñoom artistes yi ngir dimbali leen ñu xool ndaxte mbas mi laaloon na leen lool. li may wax ci fonds de garantie bi mooy liggéey technique bi ñu war a def yëpp def nañ ko parce que si mois d' octobre président dafa demandé woon secteur yenn secteurs yi ñu xalaat si seen ni ñuy. suñu jugee ci mbas bi wala boog euh, nan la ñuy génnee ci situation bi mbas bi andi maanaam ñu relancer seen ay euh, secteur donc ñu daal di am dajeel bu yaatu pendant ñetti fan ñu nag acteur culturel pour xalaat ci activités yi ak projet yi nga xamante ne moom mooy permettre bu ñu jugee ci lii euh, secteur bi jëm ci kanam donc ci biir ndaje yooyu si lañu en effet ni xalaat ni que fonds de bu buñ ko fi tegee dina permettre acteurs culturels yi ñu mën a développer seeni projet pour que ñu mam ay entreprises yoo xamante ne yu dëgër lay doon. fête de la musique ñu duppee ko World Music Day mi nga xamante ni day fësal été bi nga xamante ni moo war a démarrer waaye leneen lii tamit ki ko njëkk a sos ki fi nekkoon ministre de la culture bu France mi ngi ko duppee Jack Lang ñu ndokkeel képp koo xamante ni yangu yëngu ci wàllu caada fi ci réew bu euh, Sénégal ginnaaw réew bu Sénégal dañu utali beneen réew ca Mali la ñuy euh, dëkkmal force française yi nag euh, ni tey ji bu opération Barkhane daal nañ leen di congu ni ki tey ji yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin ginnaaw itam aw ndell woo xamante ni daal dañ koy dëxëñ ci ab ndaamaar jàppale ne ca diwaan bu Mali nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor dogal la ñu ngay wëy di càmm li nga xam ne nag moom moo di seen nag euh, kaaraange ab hélicoptère woo xamante ni euh, daal nañ leen di laal lañ leen koy yónnee ca gaawoo ngir rek ñu daal di évacuer ñooñu nga xam ne am nañu ci ay euh, gaañu gaañu ginnaaw Mali ca réewaan bu Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo moom moomee nag amal na génnam bu njëkk ginnaaw itam bu mu doon rek amal dikkam ca diwaan bu Côte d'Ivoire fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin wi li nga xam ne nag moom lañu ñu génn naka noonu itam muy ñaalu baax a baax pëccëxoo wi nga xam ne nemmeeku nañu ko fa ba muy ñëw ñenn ci ñoo xamante ni ni ay euh, ñoñom lañ ñu ko doon teeru ca aéroport euh, bu Abidjan dañ ci dikkaat nu mu euh, gën yaatoo wax itam ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu tàggat yaram ñetteel bi waaye itam nekk mu jël teelu journée bu euro 2020 jàppale ne groupe C bi nag ni ki tey ji bu 16 jotee maanaam ñeenti waxtu Ukraine dina dajeek ak ki nga xam ne moom moo di Autriche Macédoine bu du dina dajeek itam ki nga xam ne moom moo di Pays-Bas bu 19h jotee maanaam juróom-ñaari waxtu groupe B Russie dina dajeek Danemark Finlande itam dina dajeek ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, Belgique ginnaaw tàggat yaram ca biti réew ñu ñëw file ci réew bu euh, Sénégal wàllu euh, box nag mu mel ne ca diwaan bu euh, Lougaloo daal nañu fay jël lu tollook fukk juróom benn ñoo xamante ni nag dañu yëngu ci wàll wi ngir rek ñu daal di taxawal gox boobee nag lu ñeel championnat national bu box lu ñu bëgg moom moo di gën a ñoŋal lépp lu ñeel wàllu box fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu reportage bu Thierno Fall ci juróom benn boxeur yi bàyyee ko woon ci sport point kona sensey teewali Louga ci championnat boxe ya ca Ndakaaru ñett ña qualifié nañ ngir jongante phase finale ya ba tey nii ñuy waxee Louga tuwaa ci seen parcours ci championnat bi ku ci mel ne Talla Konaté am na six victoire zéro défaite di continuer course am ku ci mel ne Mortala Diop mi ngi ci compétition bi Serigne Moussa Mbaye ak yeneen xale yoo xam tey ñi ngi dem di boxe résultat yu ni mel mi ngi juddoo ci effort yi nga xamee ni sport point Kona Sansei mi ngi koy amal fii ci diwaanu Louga ngir suqali sport bi ci diwaan gi. ñu ngi dugg ci sunu dixième année mais boo xoolee dix ans yi di benn bilan boo nga xam ne si euh, bilan bu positif la ñu def ci ay résultats yoo nga xam ne si ci wàllu karaté la commencé woon tey. mais tey dem nañ ba ci boxe bi kickboxing bi ba athlétisme tey actuellement ni nga ko intégré fii. créé nañ fi ay champion ay sportif yoo xam ni ñi ngi nekk di gañee au niveau international au niveau continental am na sportif yoo xam ni ñi ngi gañee au niveau national am na ñoo xam ni au niveau régional comme athlétisme bi barki démb ñi ngi compétir gagné ay médailles foofu au niveau régional. ci anniversaire bi nga xamee ni si sport pointe Kona Sensei mi ngi ci doon feete ay 10 ans daal dinañ ci profito rek sargal sportif yi nga xamee ni bàyyee ko woon nañ fi Louga dem joŋante ji ca indaale ay médailles. jërëjëf euh, Thierno Fall ca diwaan bu euh, Louga mbokk yi dañuy àddu itam ci xibaar yi nga xam ne euh, moom moo ñu dàpp léegi ab balen baleen boo xamante ni nag daal nañ mbaal yi daal nañ koy jàpp fu lu tolloog 10 kilomètres ca Cap Manuel écologiste bile di Ali Aydar moom moo ñu ko xamal léegi léegi moom moomee itam bëgg na rek ñu daal di ci jël ay dogal laata rek bay di wëy mbuus naka noonu itam daal nay jot kook suñu ndaw. Chérif bu fekkee élément bi euh, noppi na ñu jagleel ko mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média. démb ci ngoon booru 17h dañu signalé ni dafa am benn baleen bu benn mbaal fele jàpp baleen bi nag bi ko mbaal bi jàppee mi ngi jéem a génn mi ngi def li mu mën pour rëcc waaye mënul rëcc ñi filmer scène bi ñu ne baleine bi mu ngi doon dem ci booru mbuur diggante sali ak mbuur maanaam cap boobu la jël ñu ne nag bépp pêcheur bu ko gis ci biir géej gi mu woote océanium plongeur u océanium yi dinañu dem pour jàppale baleen bi mu génn ci mbaal boobu balaa mooy dee ñu soobu euh, ci leneen mu di li ci yéenekaay yi ñu ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñun ñëpp au garde à vous ñu dugg biir gendarmerie nationale ngir wax ci gendarme yi yëral xët mu njëkk Le Quotidien mi ngi ñuy wax lenn ci li waral général san Baptiste Tine mi jiite woon gendarmerie nationale ñu wàccee ko benn ca moo di ba ñu koy wàccee booba fekkul mu jeexal ne dese woon na ko ñetti weer ngir mu dem retraite li ko tax a tëb journal bi nañu ay dégâts collatéral ñax goo moo lakk lakkaale gu tooy ne li wàccee capitaine Touré moo ko yóbbaale te du loolee rek ne ni gendarme yi taxawee ci fitna ji fi woon ci weeru mars bi ñu bëggee téye Ousmane Sonko looleet bokk na ci li teeree ci ay loxom journal tribune xëy di ko dëggal ba bindal ñu ne sagara ngay xeeñ ba léegi ci biir gendarmerie nationale yéenekaay bi xëy samp ñetti laaj ci xëtamu njëkk benn moo di lan moo tax ñu tëbal général Tine ci jamono ji nga xam ne ñetti weer rek ko dese woon ngir mu dem retraite ñaareel ba di ak wàccee moom général Tine yan rapport la am ak radiation bu capitaine Touré mbir meneen mu journal bi seetlu ci yëf yi moo di moom général Jean Baptiste Tine mooy ñaareelu général bi ñu wàccee te seen dem retraite jotul jottali leen ma Les Échos mi xëy jote ji ca Casamance ndaw yi dëkk ba dizaine ya fa nekk la ñu journal bu njëkk ne fippu nañu yéenekaay bi travaux yi jëm ci route nationale numéro bi ak yi jëm ci boucle des Caléonailles te ñu foqartee ko ci entreprise bi di Ecotra jox ko ay Sinwaa moom la jeunes Casamance yi ne duñu ko nangu bëgguñoo gisee Sinwaa ca Casamance nañu jël liggéey bi delloo ko mi ko mas di doxal ndax ñoom dara jaralu leen di liggéey ak Sinwaa Sinwaa yi respecté leen joxuñu leen cër jàppale leen dañu fay ñëw liggéey seenub xaalis ci seen kaw dem seen yoon CRSG moo ko moom moom mi ñëpp yi wër di Youssou Ndour xëy na feeñ ci l'Observateur Youssou Ndour moo amee xët mu njëkk journal bi ndaje mi ñu naan forum de Dakar ci la xëy di waxtaan ak ay chafal bu yéenekaay bi forum de Dakar suba ci talaata ji ci lay tàmbali vivre en ville en 2020 mooy ponk bi maanaam thème bi Youssou Ndour mi président fondateur Africa Innovation gi organiser xew-xew bi mi ngi xam le ne ñoo ngi ciy séentu lu mat ñeenti téeméer jàpp juróomi téeméeri kilifa war a bàyyee ko fu nekk ci Afrique ak fu nekk ci Europe bari na yuñ ca mën yoo xam ne dara ko gën di doon njariñ ci Afrique rawati rawatina ci Sénégal njiitu Sénégal di président Macky Sall ci la Sénégal ci réew mi quotidien ak ci Source A dooree ko ak journal L'As mi bu toj nañu ci responsable yi politique yi wane seen bopp ci nganug Macky Sall gi ca Daara Jolof ràññee nañu ca ndaw si di honorable député Annie Mbeng tapis rouge la lalal Macky moom la ko teeroo Source A nañu ca commune bu Daara Jolof ministre yi di Aly Saleh Diop Samba Ndiobène Ka ak honorable député Annie Mbeng ak docteur Moussa Sow def nañu mobilisation bu amul fenn waaye Macky Sall def na waa Daara Jolof lu amul fenn da leen a fooyooyal tuutal leen ñàkk leen fayda ndax la mobilisation ba di rëy rëy li mbooloo mi di bari bari Macky Sall ba mu tolloo ca Daara Jolof vif la fa rombe ak i watam taxawu fa sax ne leen dee leen ñu jullee leen Aly Ngouille Ndiaye daal ak Sidel Sow ak consort ñoom la doon joobee ca Linguère réew mi quotidien nañu moom jiitu mi Macky Sall tournée économique yi mu nekk risque léegi ndax am na ku ca ñàkk bakkanam ca Ranérou moom Macky Sall it ba muy tournée ba yegg ca Touba dañ ko fa doon yuuxoo loolee moom farandoy Ousmane Sonko yi la ñoo doon yuuxoo Macky Sall ca Touba Tiwaawoon du neex a lijjanti ci élection locale yi déwén yi la Sénégal mi ngi ñuy wax ne am na ñeenti ponkal yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar yoo xam ne ku ci nekk ci ñoom samp na am dëndam ne dafa bëgg doon maire bu dëkk ba ki mujjee sampum dëndam ne maire Tiwaawoon ca Tiwaawoon ca Malicounda journal mi ngi ñuy xamal ne foofee moom dëkkante amu fa waa Benno Bokk Yaakaar ya fa nekk Maguette Sène ñu tànn def ko seen candidat ngir mu jiitewaat mairie bu Malicounda dogal boobe ñoo ngi ko jël ci meeting bu ñu doon amal keroog samedi ci kër may sëgga ca Malicounda fu soriwul Malicounda di ca tubaab jalaaw libération xëy na di ñu fa wax mbir mu yéeme te doy waar mu fa xew keroog ajjuma ay wëyu di samba booy yor seeni ngànnaay ay jaasee ki ñoo bàyyi ba guddi ñu dugg ca l'hôtel bii di Pierre de Lys neutraliser ñaari gardien ya fa ne woon yeew leen ba ñu ne quatre-vingt-dix mille l'observateur dolli ñu ci ne du loolee rek la samba bu yi jël ca l'hôtel ba jël nañu fa ay takkaay jël fa ay téléphone portable ak i effet personnel jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la beneen ab Mamadou bu may seen Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu maa ngi lay euh, fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yeeg internet yi ñuy xaar. comme ci as l'habitude de le dire heure bu baax moom moo jot li gën a fës ci internet bi dafa mel ni moom mooy waaye door. waaw dinañ ci dinañ ci ñëw tey xam nga ni tey mooy journée self day. waaw gis naa ko ci réseau yi. mi ngi noonu tey dinañ ci waxtaan moo tax xam naa ne balaa ngaa jeexal da ngay def sa benn selfie rek daal di ñu koy baaxee ñu partagé ko téléspectateurs yi. Modou Modou loolu bàyyi naa ak yow. xam nga donc yow yaay 2 point 0 xaw ma 4 point 0. Eh. man bàyyi ma ci bu yàgg bi rek. amul problème d' accord jaajëf léegi léegi lay doon li ci internet bi mbokk yi fii la ñuy jaar daal di buural wi la jotaayu xibaar dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média lu ma loolee tam leen di des ak programme TFM jaa ngeen jëf kendal ak jàmm